bon salaamaaleykum euh, mbokk jullit yi ñu ngi fii tey ci sëg ci armeeru Maalum bi ñëw fii def benn visite euh, seetlu taxaw seetlu man ak sama waa ji Babacar Sall waaye vraiment nu ñu fekkee affaire yi doy na te vraiment euh, neexul voilà donc ñu ngi nii def benn petite vidéo pour wan askan bi ne li war nañ ci jokk war nañ ci taxaw war nañ ci taxaw vraiment vraiment war nañ ci taxaw maa ni nii maag sama waa ji Sall donc sunu ba mel bi ndox la ba fess ba mel ngi ci ndox ni ci ndox ni bàmmeel ndox sax mo xawa tane lu mu def def ben diggam mu arrêté tuuti côté bi mais taxul te mu ngi jàll ni mu léegi dañ leen woon ne xoolal bàmmeel bi nekk ci biir ndox mi waaw mu zoom ko mu ñëw bëri mu ci biir gis nga bàmmeel bëri mu ci biir ci biir ndox mi bëri seey nañ ci biir ndox mi vraiment doy na waar yéeme na doy na waar miir baa ngi nii aros asalaamaaleykum maa ngi lay ziar mon ami tey ñëw nañ fii def visite ci armeel yi voilà di xool affaire bi nga xam ni yéeme na te doy na waar te vraiment bëgg nañ monsieur le maire jot ci ñu am saafara ci lii envers population bi bisimilah sama waa ji. tey dañoo am naqar parce que dëgg-dëgg ku ñu xam-xam ne ñun ci xeex lañ mën nekk tey nag politique tey vraiment dañoo am cri de cœur. Mhm.

Donc on lance un appel mhm. à toutes les autorités communales, mhm. surtout à Serimbou, mhm. que nous devons faire Parce que nous, on est en train de faire un travail de collectif. Les autorités administratives, les autorités étatiques, les autorités communales. Même bu nous sommes autorités, autorité c'est les bonnes volontés ñu jéem nous faire pour mun a une solution par rapport situation là. Mhm. situation bi muy perdurer. non non parce que xam nga li tax. non mhm. je vais faire un témoignage. dafa am suñu benn grand frère boo xam ne dañ ko doon mhm. mais on a passé quatre heures de temps. fu ñu gas. ndox génn. fu ñu gas. ndox génn finalement. gaa yi ci ginnaaw bi nga xam ne ñoom ñoo am ay peel mhm. ñooñu ñu ngi may suuf mhm. tub nañu kap benn benn peelu suuf mhm. peelal ñu ko pour ñu mun a ensevelir suñu ah, te loolu daw na yaram te loolu daw na yaram tey jii la nappe phréatique est très près la nak na eh, eh, phréatique dafa jege. Hmm. fo gas rek ndox day am. kenn mënu ci fay dem ci biir ak biir tey. defuñ ko prix politique. mais dañ koy dafa nek prix de cœur. dañu bëgg nak autorité yi yëg su nekkee nak yëguñ ko defuñ ci liñ ci war. ñun li ñu wara a def dinañ ko def. dinañ war a dem hmm. fi ñu war a dem. dinañ jël suñu alal dinañ jël suñu doole. parce que ñun. duñ ñun fi la ñu mujj. fi la ñu mujj parce que fi la ñu denc. dëgg la donc bala ñuy xex ci lenn ci li lañ jëk xex xeex. ngeen jégal ma ci wax ci xol bi xaw na jeex. fii dañ fi wara nek di ñaan kese

de, trouver des solutions par rapport à cette situation-là. Tout à fait. Donc, nous pouvons lancer appel. Nous mm-hmm. pouvons dara. Nous mettre notre fille à lundi. Si nous pas on va faire, on va essayer de faire quelque chose mm-hmm. pour notre fille. le premier acte. Mm-hmm. Parce que ça, euh, euh bonnet, bonnet, Sarah. ne Maalum. Mhm. ne HLM Saara. Mhm. tout à fait ci kàddu yi. Mhm. jërë ngeen merci beaucoup. ñu wan leen tuuti image yi nga xam ne vraiment gis nga bàmmeel bi ci biir ndox mi bameel yaa ngi ni ci biir ndox mi gis nga ko yaa ngi nii fees ba ci biir ndox mi gis nga ko gis nga ko bàmmeel yi. doy na waar loolu doy na waar boo gasee boo gasee boo gasee tuuti rek ndox day génn xoolal ma bàmmeel bi xoolal ma xoolal ma bàmmeel la waaye xoolal ma ndox maa ngi nii ci biir waaw ndox maa ngi nii ci biir